plusieurs amuna amuna couleur na yu bari parce que ay femmes la yo xamné ay femmes yu jiite ay GIE ay femmes de développement ñu ngi suñu biir ay femmes la euh, yo xam aussi seen i biir kër la ñu nekk ay femmes la yo xamné s'eni s'eni s'eni s'eni ay mbolo lañu andal aussi ñeu représenter s'en bop fi ñom ñep ñoo bokk réseau bi. d'abord dañu dañu tek ci yonam

Nous sommes ci seen biir yëngu nañ politique mais réseau bi c'est la première fois ñuy nous a yëngu ci politique. et c'est la première euh, moom que nekk premier acteur politique bu nga xam ne nañu pour ànd ak taxaw rek taxaw Sénégal parce que Sénégal ñun ñi ñoo comprendre que ni dëkk bi bu baaxee ñun la bu ñun la parce que ñun ñoo dëkk Sénégal ñun la sunu yi Sénégal ba tax na lépp loo xam ne mën nañ ko dinañ ko ci def pour euh, indi suñu pierre de l'édifice incha allah. mën nañu ëpp mille wala euh, plus de cinq cent wala nangam parce que kenn ku ci nekk mbooloo mi toll topp ci sa ginnaaw ëpp na euh, ak sa njaboot et tout donc mënuñu joxe un chiffre exact. donc tey dama am mbégte recevoir. Euh, coordinatrice su Banlieusards ñi nga xam ne dañu ñëw adhéré si ci coalition Adiana di ko rafetlu te di leen tendre la main di leen wax euh, nañu egsi ak jàmm ci biir coalition bi comme on dit hein euh, le ministre président Thierno n'est plus à présenter donc euh, ils ont jugé nécessaire de venir de soutenir dans ce qu'il fait et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui Ils ah, dañu pour apporter leur pierre à l'édifice et ça nous soulage qu'on di xam ñun

ah mooy début mooy fin fin wu lépp ba tax na jigéen yi lu ñu nekk day jëm kanam te ci biir coalition yi je pense que jigéen yi am nañ ci taxawaay bu xàññeeku ñi ñi ñi nga xam ne dañoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar di ci jëm gis nañu li nga xam ne jigéen moom lay njëriñ ah ci ci cadre politique bi ci cadre maison ci cadre leneen ak leneen ak liggéey jigéen dafa am présence am taxawaay ba tax na yàlla ku mu cëral rek cëru nga te dafa cëral jigéen yi donc ñun mënuñu def lu dul uh, kawe fu ñu mun munti nekk te dañuy kawe te yaakaar naa ne loolu uh, àddina bi yëpp xam nañ ko. waaw coalition Adiana stratégie bi mu teg mooy liggéey liggéey nag boo ko déggee mooy fépp fu sénégalais nekk ak sénégalaise nekk. le président Tchernolo Lo ak ay jigenam tek fa tank. Tek fa tank moy dañu dem setti ku ne fa nga nek ak de ba nga a waxtan ak yow wax la li nga mom le président Macky Sall en 2019 au premier tour donc yakarna ci loolu la ñuy dox depuis bobu légui. ñun ñi ngi massifier ñi ngi liggéey Hein? coalition bi mi élargir partout partout au Sénégal coalition Ming élargie élargir Et te à l'extérieur ñi nga xam la diaspora bi ñoom it donc nous, sommes massifiés. def et massifier massifier ak fidéliser dañu parrainage nous continuons de parrainer euh, nous avons plus de 20 000 signatures actuellement ni fi à l'heure où je vous parle et on attend plus de 2000 signatures yi nga xam ne aussi au niveau de Thiès donc xam nga ñun élargir donc suñu nous ba am loolu ci signature yi nga permettre président bi ñu investir dans investir nañ ko ci gagner avec le ak salaam li ci toppaat nag te président di faral di wax su fidéliser ñi nga xam ne jox signature ba jour élection yi nous leen normalement le président Macky Sall gagné au soir du 25 euh, au soir du 25 février 2019 au premier tour donc nous ci le lañ